Bienvenue sur Salam Vision. salaam salaam salaam salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki àdduna salaamaaleykum mbokki Afrique ak ñeneen ak ñeneen. tey fi ñu ñëw tey jii dafa nekk tey jii ci quartier yoo xamante ni quartier yu naqaree lim la bu nekk quartier yu naqaree mooy maanaam doo ci génne Malika. doo ci génnee yëmbal doo ci génnee benn braque doo ci génnee caaro yi doo ci génnee pikin xam nga tey ki ñu seet si tey mooy fayatar wàpp tey bu ñu nee fayatar wàpp loolu noonu man du ma ko tekki li tax du ma ko tekki mooy ki ko war a tekkee ngi nii jàkkaarloo ak man mais bras boobu noonu dama koy bàyyi mu nuyoo fayatar a maa ngi lay siyaar. waaw ah, salaam salaam ziar nañ la bro ziar nañ la di euh, képp nga xam ne yaa ngi may seetaan di ziar di ziar bépp téléspectateur maa ngi déggee ñëpp di leen wax Fayetal Rap pour yéen. tey ji ma toog ak tey Fayetal Rap te Fayetal Rap dañoo toogoon ay diir daan ko dégg Fayetal Rap organiser ay concert yëngal gox bi yëngal secteur yi ñu jékki-jékki toogaan ay diir dégguñu Fayetal Rap. gisuñu fighter rap fighter rap dafa toog senegal wala fighter rap léegi dafa am business boo xamante ni da ko tënk ba fighter rap nekkatul Sénégal mais lu waral loolu quoi fighter rap. li ko waral mooy ba sama album génne l' album mot de passe nekkoon douze titres ñu def M U X def 2 def P 2 S ba album bi génnee def Philippe Fala di wër ci di daw un peu partout ci laa ne benn contrat tukki. mais actuellement rap moom euh, li ñu wax rek rap da koy def mais tamit di nga ko boole sa yeneen business léegi nag yàlla def na ubbil nañ ñu nag yeneen porte parce que euh, léegi dugg nañ kaaw bi am nañ beneen état d'esprit am nañ beneen vision parce que dañoo dem jàngi musique bañ demee ba qualifié ba maîtriser li ñuy def la ñuy door a ñibbisi loolu rek moo waroon raar bi quoi. Fighter Rap génne na album Fighter Rap am ci contrat Fighter Rap Fighter Rap albumu Fighter Rap ban année la Fighter Rap génne album. yee l' album mot de passe 2013 la woon 2013 la ñu am euh, suñu premier album mu nekkoon 12 titres nekkoon album bu engagé album boo xam ne thème yëpp ay actualité la ay thèmes yu neex a ci nekk ay ku ci mel ne ay ndawtal ay jëfru ay sukuraat ay silmaxa euh, revue de presse xale def naa ci featuring Demba Gisee def naa ci featuring Dog def naa ci featuring Daddy Bibson def naa ci featuring ak booyu yëmbali quoi. Eh, nga ne def nga featuring ak Daddy Bibson yee après Daddy Bibson amaana tam yeneen featuring ak Demba Guissé tey jii sa digganteeg euh, ñooñu bi nga leen soxlaa di def ak ñoom featuring te moment boobu noonu xam nga xëy na gars dañ daan gis benn artiste ni di ko xeeb war a yooyu noonu mais moment yi ngeen soxla woon sa album est ce que moment boobu noonu méttiwul woon en cent pour cent non méttiwul woon nag parce que yàlla dafa def euh, li naan lu bokk niroo te lu nekk si xol feeñ ci jëf yàlla dafa def démb gisee man ba fi ma xamee moom mooy euh, benn concours bu Edouard doon def linki soo Walfadjri si laa sama son silmaxa bi mu ñëw apprécier ma mu nekk ko oyof ci laa jëlee contact am ñi waxtaan mu ni ma amul benn problème dinaa ñëw saal boobu après mu ñëw yombal ko lool ànd nañ ci ñaari morceau son yaay ak son lamb ji. son lamb ji mais son boobu dafa mel ne na ba ay ay ay mbëri bari mbëri mbëri foo ju gars ñu jël saan boobu noonu xam nga teg ko. xam nga sinap ci xam nga nekk ci lu nekk mais esprit sant boobu noonu noonu ci lan nga ko jëlee ma secteur bi dafa am ay mbër yu fi doon nekk war a maanaam da nga toog ba si àgg sa nekk ci mbër yu mag yi comme Sénégal culture sénégalais nga nekk ci quoi bind ci sant bi ba askanu Sénégal mbër yëpp gën di ko bëgg. voilà waa boo gisee ma def ko mooy euh, lambo actuellement dafa xewoon surtout jamono bi sama album di génn dafa xewoon am doole xam nga tension lamb ji foo tourné te en même suñu koñ bi am na ay lamb am na ay mbër mbër yu fi nekk xam nga ku ci mel ne ay caatu yëmbal ay Aliou Seye junior waaw ay baay Ndiaga mbër ay ay gars yëpp a ngi fi daal ñu bëree ngi fi ay garga xam nga yàlla def ama ci laa defee son bi takk ci mbër yëpp Bécaye Mbaye moo ma njëkk wax ne ma son bi da nga ci defoon Balla Gaye rek nga ci wayoon mais boo ma déggalee wayaat ko way ci mbër yëpp boo ko defee son bi dina réussir après ci laa ko defee ne mbër mi boo ko songee mu kal la lakkal la naccal la koo koy pakkal la Ama Baldé dafa am rapide am tactique am technique bëri mystique guy gi dalay simpi nga bañ mu daan lay kal jëli mi daan da koo mokkal bàyyi ma ñoom ñëpp sopp dafa bëri li topp rawani di caaray bopp ma heusa giri VIP yow la waa Fass ngeen bu daaw ba ren ni di nga doon roi des arènes Tyson daan na ku ne ba ci gone combat du ko mos a fowe la daguerre dafa saf mooy buuru kaaf faam cardé loxo bee saf ni mu tardé booy bawal dafa sipp ku ñëw mu takk ci ripp ma seen dafa dëj dëgër këcc ngemb lu ko sa jàpp du rëcc ëmm a xam pànkam ëmm mbër du laal tànkam parcelle 1 ba 26 xam na ni xaren dafa diis kale yi mu yor xaju ci walis ku weddi laajal pour Maurice Balla Gaye moo lépp gannaaw dàq la bëre gën la gaaw ki fi ñëpp bàyyi moo ko daan mbër mu ñëw mu duma daan nangu leen mooy seen Zidane ay doon kee mais fighter rap fighter rap mais gis nga ah. dafa am loo xamante ni comme ni Pape Sidi doon wax quoi sama grand Pape Sidi Fall maa ngi lay bëggee bu baax a baax a baax ndax yow moom xam nga suñu grand nga te suñu ginnaaw waaw sa ginnaaw lañ topp mais Pape Aïdara Sénégal dafa mel ni euh, maanaam dafa am lu ma xaw a jaaxal tuuti mooy ñi am talent yi mën li ñuy def. maanaam gars yi bàyyi nañ leen xel quoi mais lan moo tax gars yi joxuñu leen bopp en 100 pour cent mais Fayda Rap fi nga dëkkee tey secteur bii nii taxawaayu secteur bi tey yow ci say ci say concert ci say encadrement maanaam ñoom léegi lan la ñuy xaar quoi. non actuellement xam nga yëmbal kàmb la quoi te am fi mooy hut bi tey ji su ma fàttale ko comme Pacotille mi nga xam ni tey moo fi nekkoon xam nga yàlla sampoon ko tey ji yàlla jëlee ko fii tey jii man maay sordaar bi war a jël mission bi àggale ko xam nga wax bascule la bu génnee nga xam lu borom di peese donc man Inzi dama pare pour téye game bi sama loxo te fii du yàgg dara mystique bi day génn rappeur yëpp dina ñëw ràmba ci man dama affaire bi yow a parce que lu nekk sa xol feeñ ci jëf te xam nga li naan tàkk-tàkk li ko taal fayu ko te luy ràmb ci ñag bi la jëm luy naaw moo nekk sànni man kenn du ma téye kan moo may baare gars yi naan lu ñu xëy na këtëm ne yoon kenn du ko sikki sàkkal jëmm la ak i jëmmam li nekk ci moom wute na ak ñeneen fighter rap la mën a doon te kenn du ko jéeg dégg nga li mu leen wax nee na hip hop gasan secteur ba mu ne xaw ma kan waaye la për yëpp dinañ sukk ñëw mais am na ñuy commenté suuf nee nañ fighter rap moomu fighter rap maanaam tur bi quoi turu fighter rap bi lu waral tur bi quoi maanaam lu war la mooy indi si turu fighter rap. jeex na way fighter rap fighter rap dix lettres la. dix un ak zéro la zéro bi ñu nekk muy serkel bi muy àdduna bi muy zéro bi un bi mooy signifie yàlla rek a fi nekk sept araf yi boo ko dëppantee mu jox la yàlla tiif y ak a ngay jël muy yaa nga jël l a muy la nga jël tf muy yàlla tiif moo tax suñ concept duñ bëgg di saaga wala ñuy wax lu ñaaw ndax rab bu xamlewul yeetewul diglewul rek amul njëriñ quoi faytal rab loolu lay tekki mais faytal rab bi nga toogee séance toog xalaataat loolu quoi xaaral ma jël fighting rap tuddee ko sama bopp maanaam yow bi ngay xalaat tur bi nga xam ne yow mu nga war a tuddee sa bopp gaan pour hip hop gaan seen mën a ràññee tur boobu noonu bi ngay toog di xalaat tur nan la la dikkee ba tax nga jékki-jékki tuddee ko sa bopp yee waaw parce que boobu nekkoon nañ gang gang lañu woon gars yi di bàyyi ñu ngi tuddoon bul laal gi posi bul laal moo bul laal bul laal gi posi mais mais c'est pas vrai mais lan moo tax non non hip hop am ngeen problème bi lay walaay am ngeen problème nga ne nga ne gàngoor bi ñoo tuddoon na. bul laal gi possible bul laal la ma war a la a moom koo koo koo laal rek am nga problème parce que gang la woon te gang bi dañoo bëri woon ay ñoom Bouda gaa yëpp a nekkoon ay ñoom euh, Das MC ay ñoom Bayzo Alla Mbaye ay ñoom Aline Guraan waaye gaa yëpp a ci nekkoon daal mu nekkoon groupe bu amoon doole nag xam nga ay tafaamu ndaw gaa yi dañoo dem ba si biir xam nga rek gaa yi di bàyyi di bàyyi di xam nga ñii dem ba ci ay mastapi ñii bàyyi di bàyyi ba si bañ demee ba jeex daal xam nga rek après mu des man rek daal noonu laa continuer bi quoi gars yi ngi commenté suuf ne nañ fighter rap ban année ci ban année la fighter rap ne xam nga ban année la fighter rap jug ne bis ni ko tey man pare naa ngir doon pët pët. waaw loolu nag mi ngi nekk 2002 parce que Pacotille ba mu génnee l'an 2000 laa ko tafu jege ko juddoo ci euh, màggee ci keppaaru Pacotille juddoo ci keppaaru Pacotille moo tax su ma waxee man dañ may dégg samay rim day neex samay message day leer te loolu lañ soxla ci game bi. fàttaliku koo xamante ni Sénégal ñoo ko xam adduna dañ koo xam Afrique monde entier dañ koo xam muy Pacoti année bi Pacoti génnee adduna fighter rap fighter rap bi mu toogee ba si yàgg jékki-jékki dégg message yu ne Pacoti wàcc na moment boobu bi nga toogee sa xel ci lan la njëkk a yee dafa dafa dafa doy waaraa ah. parce que man jour bi may yëg ne gaañu na sax boobu dem naa liggéeyi suba gi àlla mbay sama téléphone sonné ma jot àlla mu ni ma sa waa ji génn na àdduna man ko kan mu ni ma pakoti ma ne ko dafay sóob pakoti munul génn àdduna noonu noonu noonu man mu ni ma génn na àdduna dëgg la de média yi après man ci laa taalee sama télé place gis affaire yi quoi mu leer ma ni lii nag dëgg la quoi après ci laa tëjee dem donc man maa doon def émission maa doon def interview yëpp ci ci def naa def naa Rewmi FM def naa Dakar FM di expliquer après parce que Tafa Jibril gaa yëpp expliqué nañu pàkkati deewam nii la demee xam nga te nekkoon na ku waa ku baax parce que ba muy dee di wax soxlaam loolu yombul parce que bañ ko yebee ci bi moom donc biir la doon jàmbat mais bañ koy yebee ci bi war ko yóbbu ci fajar gi jotul egg sax dañ ko ba a tourné parce que euh, mi ngi doon tari. Euh, sabbi isma rabbika a'la allazi xalaqa sa sawwa di ko wax ba chauffeur bi doomam ne ko eh, papa pakoti waxatul di affaire yooyu noonu ci lañ tourné waatee mu xam ne kii doom dee na après ñu tourné waat yàgg sax hôpital yal na ko yàlla yërëm donte jege woon ngeen ko xamoon ngeen di nekkoon ci pakoti yal na ko yàlla yërëm parce que àdduna moom daanaka yàlla suñu borom moo dogal ci lu nekk. xam nga te bu xase ba am day am mais tey ji Fayta rap ci biir hip hop 2002 la commencé dugg ci rap tey Fayta rap tolloon na ay diggante yoo xamante ni maanaam day tar Fayta rap toogoon na diggante yoo xamante ni taroon na ci côté de job ci côté des poches ci côté de famille léeg-léeg da ngay dëkk ci famille yoo xamante ni boo amul rek doo am noo fa mel mais Fayta rap avant moo am lii tey yàlla su mbërëm indi ko tey muy teraanga tey te Fayital Rap démb ci dundam. métti mm-hmm. woon na métti goo xamante ni maanaam boo toogee fàttaliku ko Fayital Rap am na loo xam ne bu ko xalaatee rek. waaw Fayital Rap foofu laa bëgg nga ñëw fa. woy suma ma su ma su ma fàttalikoo euh, xam nga li naan tolof tolof mënul ñàkk ci jaam mais ñun fi ñu jaar fa jaar takk ban man fanaan naa ci xeeru Fass Mbao boobu ngay gis xeer bi newoon fa station bi fanaan naa fa ba suba. donc parce que boobu maa ngi doon calculé paas fukki dërëm la jamonoy paas fukki dërëm ma taxaw ñëw oto amul oto dawul noonu laa toogee fanaan ba fajar ma paasaat fukki dërëm dem yëmbal beneen bis topp dem na dakaar di bind parce que ma dama doon def grave di bind fayta rab bi fépp laa ko bind autoroute bi fépp benn jour dama koy bind am benn sanguinaire la peut-être dof la comme lu mu doon daal mooy bind fayital mais jotul egg sax moo tax fayta bi nga gis fayital bi ñu bind euh, nu mu tëdd kolobaan fayta rek leen def egg li eggul parce que damay bind di bind ba benn euh, dof jékki-jékki ne ma hey jugal foofu man ma dëgër bop xam man moom yàllaa ma bindee nii quoi aw ma leen lu may maayeen quoi ma eggali ba mu ñëw mu ñëw ne ma xanaa xamoo ma yow arrêté sama gaañ bi vie Dia cinéma fight tey ngaa bàyyi moo gën parce que tamit am na yoo xam jaru ko quoi waa ji génneel jaas bi weex tàll tàll bes takk taxaw naan may man ci asamaan ci laa jugee maa la dàq bind li may def nii xamoo ko yow ci laa ñaar kii dof la jarul topp quoi moo tax ba léegi fayital boobu eggul fayital rek ngay gis donc bis boobu noonu benn policier mi ngi fa taxaw deful réaction waxul deful dara xam nga tamit moo tax euh, Sénégal dem fi yombul dem lu ne ngay gis rawatina suñu yëmbal bii Macky Sall dama lay dénoncer benn kàddu nga jàppale ñu suñu son suñu yëmbal suñu télé bii nga defaral ñu ko ngir yàlla war a suul yi sinon boo ko mënul defar fii ak 3 mois. dinaa jël ay tiset def ci croix woo doomu yem ba lépp ñëw taxaw ci télé bi oto du dem auto du dikk ba pare ma woo site internet yëpp parce que am naa capacité bi am naa moyen bi am naa connaissance bi donc dinaa woo site internet yëpp ñu ñëw kaas suñu doléance te boobaa loolu day xawi sa sutura jaru ko yëmbal nag dañu bëgg ku ñu jàppale ku ñu defaral suñu télé bi parce que télé bi ay góom rek la am pagaay foo Sénégal yëmbal gi kenn mënu fee am 60 ans te amoo problème mu dikk parce que lu tax kàmb yee tax. man bi may ñëw rek man dama am problème parce que 10 heures pile laa fi war a yegg si. daanaka 12 heures laa fi yegg si. parce que moment boobu noonu yaa may may naan la fay taram maa ngi ñëw. après nga ne ma am nga loo war a doxe benn mission man la wax dëgg fa yàlla maa ngi ñëw nii mais exact fi ma nekkee man demoon naa ba ci biir oto wiir na wiir goo xamante dem naa ba ci mais yëmbal man dem naa ba dugg foo xamante ni man xamatu ma ko man comme maanaam ngate nga ah, waaw ngate nga laa ma quoi fay tarab parce que loolu tam message la Macky Sall dimbaleel askanu Sénégal affaire bi du Dakar kase affaire bi du Fouta kase affaire bi du Kaolack kase affaire bi du waaw du Fatick kase mais yëmbal Pikine Kër Massar yooyu dañoo bokk ci biir secteur yi ngelawaay du lépp la maire bi mën mais Macky Sall dooleelal maire yi ndax maire yi mën a liggéey li nga xamante ni moom lañ bëgg def ko seen biir secteur nga ne ëllëg bis bu ñu a wax faaw moom mu jàppale ñu quoi tamit bëgguñu ñëw euh, imposer ni lii la ñuy def kon na ñëw jàppale ñu defar defaral suñu tali bi comme ki fi nekk yàlla ki fi yàlla samp moom bëgg na waaye mënul doole ji néewu fi quoi kon donc moom nañoo jàppale ñu parce que ainsi ndox mi ni muy taawee nii yëmbal bu xiinee sax dañuy tiit bu xiinee fii yëpp dañuy tëf tëfi ba pare emprunté yi place bi 200 lañ koy def diggante caaray yi yëmbal 200 la mu yërmande amatul moo tax dëkk bi mënul avancer parce que tant que jàppalantewul suñu biir. bi mais mais foo xamante ne pass fukki dërëm da daan am léegi ñu dem ba ci biir ne fooy waaj 100 francs mais 200 francs mais saa bu tawee mais mais mais dafa métti moo tax jamono du mës a changé ba pare léeg-léeg nga dugg biis gis koo xam ni euh, sa sa sa sa moroom wéy jur mu taxaw. nga yow nga toog defe naa ne loolu ñaaw na ca loolu defe naa ne koo jàppee woon tey ji sa wayjur bu taxawee tey ji di nga ne ko may mu toog wala léeg nga jigéen koo xam ne day ëmb ba pare yor xale dugg ak moom biis doo gis ku ko may mu toog wala mun ko in ma la xale bi donc faw yërmande am man nee naa leen man man maay faytalu rap fu ne laay dugg foo xalaat fu ne du ma fa dugg rek dama fay dugg parce que man genn bi ñoo ma soxla quoi mais Macky Sall xalaatal quoi parce que faw yërmande am ci réew mi parce que dund am na mais am na quoi bànneex am na mais naqar am na parce que boo xalaatee ni suñ borom dañuy sourate Muzammil ay 19 fa kayfa tataxuun in kafartum yawman yaj'alul wildaana siiba as-samaa'u munfatirun bihi kaana wahdahu maf'uula a hazihi taskira fa man saa ataxasa ila rabbi sabila nee na nit ku mënti doon bis dina ñëw ñu wàq fu tuuti tëral la lamb sa ba teg ko ci kuusu suufi rokkas la ba dootoo jàllar bi ñu ne waa jàngoog tey ji lañ koy jëbal boroomam kon nañu xalaat quoi te bàyyi affaire de défaillants yi bàyyi yenn yi ak suñ place publique bii nga xam ne ñun dañ ñu koo boole lan mooy place publique place pour place la public pour bi mais léegi ñun bu ñu bëggee def concert ñu ne duñ ko fi def te keneen ku bëgg def sabar def tax loolu waaw mais mais mais suñu suñu suñu chef de village bi ñoo duñ ko def ba përi police yi tamit ànd ak ñoom nekk ay défaillant loolu noonu dafee war a jeex quoi. mais yéen bu bëggee def concert ñoom ñu tëral leen mais bu fekkee def bëggee organiser sabar. ma wax man chef de village bi si boppam ki nga xam ne village bi bu doomam xewlee fa la koy defee bu sëtam xewlee fa la koy defee mariage fa lay tëggee musique ñun bu ñu ko fa defee mais réew mi dafa am ay chrétien am ay jullit du affaire de laayeen wala murit wala tijaan parce que chrétiens yi bu ñu xewlee seen musique chrétien yooyu la ñuy teg kon donc ñoom am nañ fa place quoi faaw ay tariixa wala dara quoi place publique place publique la gouvernement bi loolu dama koy dénoncer pour ñëpp jàpp ci xam ne yëmbal lii moo fi am yëmbal lii dafee war a jeex affaire du kumba am ndey kumba amul ndey man nous sommes des artistes awma lu may ragal lu yàlla amul yoneen bi amu ko man mënuma ko am faale ma ku ma bëgg wala ku ma bañ mais fu dëgg jotee rek dinañ taxaw wax ko ndax ku lu xaq wala kaana mu ran donte dañ lay rey waxal dëgg man dëgg laay ci dëgg laay dox ci dëgg laay dee ku may bëgg bëgg ma ku may bëgg bañ ma fighter rap for real fighter for real fayetal ndaanaan fayetal bu Sénégal man lii laa gëm ci artiste artiste donte li nekk ci yow da nga koy génne mais boo koy génnee da nga xam na nga koy génne nit la koo xamante na nit ku jar a bàyyi xel la ci mim réew mais rapportu Sénégal yi ñoo am gan bi problème mais fayetal rap label la fayetal rap di waajal fayetal rap ëllëgu rap IPEP fayetal rap ci biir Sénégal yee rab sama loxo laa koy tey game bi sama loxo maa la wax loolu yàggul dara fii ak 4 mistake bi génn gars yëpp nangul mistake bi dina génn ak 32 titres incha allah. benn booy boo xam ne damaa gis game pour nga war a mën a def man dama ko laaj sax. man bëgg naa def ak moom featuring parce que maa ngi maa ngi wër actuellement maa ngi def def ay ay yoo xam ne comme sama mixtape bi ñi ma ci war a def ak euh, featuring quoi parce que bëgg naa def ak featuring ponkal yëpp en même temps ñi nga ñi ma xam ne ma leen sentir ak ñi nga xam ne fu ma defee ñoom featuring ñu apporteel ma dara ñooñu maa ngi leen di maa leen di wàcc dama bëgg nag may gaay benn son bu ndaw boo xam ne dafa war a génn. fa laa doon jëm si sax. parce que loolu dañ ma koo téye <laughs> waaye dara loolu dañ ma koo téye mais am na ñu commencé suuf nag nee nañ fighter rap ak bakka Ndiaye bu gox bu système ñoom ñaar seen vitrine lu war a mën a. yee day am man sentir naa ko. parce que parce parce que saawu na gox bi si système mooy. bàyyi ma déy la quelques quelques artistes yoo xam dinaa defa ñoom featuring dinaa defa featuring Bass Thioune dinaa defa rek featuring euh, Baka Ndiaye dinaa def featuring Demba gise dinaa defa featuring ak Bees. dinaa def rek featuring Dadi euh, nu mu tëddee Demba Gise dinaa def featuring Ngaaka Blindé dinaa def featuring Dip Doundou incha allah. maanaam ponk li nekk ci kaw quoi maanaam ñëpp incha allah pare nga pour def ak ñëpp. yee même booy jaaxas lay ñoom featuring waaw. mais mais pare nañ ah. mais xam nga problème du waa Sénégal de waa Amérique ñoo problème Faye ba rek taxawaat Amérique. mais loolu mais euh, Allemagne mais loolu dafa garaaw mais Faye Tarab man bii ma moom ba dem Allemagne xool man dugal ma gaañ ci yaa amul blème <laughs> sama gars yi yéen ko gis xam nga loolu mooy li nga xamante ni moo fi am tey ji Fighter Rap tey lañ seet si woon fii nga xamante ni mooy bërëbam biir sayitam biir goxam nit la koo xamante ni nit ku am waaw nit ku am personnalité la quoi ci biir goxam mais tey Fighter Rap ñu bàyyi la rek dernier kàddu yi donte temps bi jeex na xam nga ñu bàyyi la nga wax ëllëgu hip hop ak ëllëgu Fighter Rap lu muy waajalaat biir Sénégal ci biir décembre. waaw ñu ngi waaj benn big concert son et lumière na ko gaa yëpp bàyyi xel te plein air koy def gratuite gaa yëpp ñëw wane seen bopp. dañ koy maye daal dañ koy maye waaw te incha allah dinaa invité star yi nga xam ne gaa yi ngi leen seetaan si télé bi te mënuñu leen gis dinaa ko xëccal leen xëccal gaa yëpp yëmbal am leen xam nga gaa yi teg mu nice quoi. Dof Nday maa ngi lay nuyu baax baax di la nuyu. non non non Dof Nday kenn du la nuyu sama biir émission non maa ngi yow Pelé Dof Nday kenn du la sama biir émission. 10 problème moom it sama gars la xam nga néew bi ñooñu samay la kooku Dof Nday xoola ay ay ay wuy ma ay ñoom Dof Nday ñooñu da nga leen di xam nga ñu lay jëmma gis nga Dof ko jaaree man kay bu ñëw léegi Dof sama gars la sama gars. sama gars la sax mais peut-être dafa la dafa la ah, parce que kii léegi moo tey affaire bi de loxoom la. non moom xam na lool sax wu ma da ngay bàyyi di ñu dose yooyu bàyyi soo yooyu ay rang yooyu noonu fii xam nga amul yooyu noonu de man ak yéen xam nga dara du sedd mais. dafa am benn son boo xam ni son bi son bi da nga siy dégg ay bàqutaay jën cak cak cak cak gë gë cak cak cak ba pare nga siy dégg voix ipongaar yi ay ca ay ay ca ba pare di ci dégg xaar mbay ma jaaga te fekk na ci dee wax. xam nga loolu dafa garaaw soo bi mawti la tudd mawti te loolu lépp da ku siy dégg da ngay fan ci làmb laay wax xam nga loolu dafa garaaw xalaatal ipongaari ay ca ay ca ay ca ba tiif gannaaw ba tànk saan jot na nag mbër mu ci nekk war na jot sa gëm te xam ne bu doon jëf la léeg mu lëndëm lamb ji buur ne moo koy tëgg taxawul ko boppam te kaay du ko rapporté CNG du ko géré doo fa gis zone yi bay seen ñu doon beeree te lu direct wala a amul dem ca ardo arbitre dafa xam sax mooy ka parparloo kon dëppal jubóog say mbokki bopp ndax bu dul baa ñu mën la de tous def say débat yëpp waaye ah buur ne doo ci jëlee ndam de ndax ki ngay dajeel ba pat na ku ne te kenn musta dégg jëllam janoon naag ku ne te musta ràññee jëmmam lim na mu cee jaar na faat ku ba ci yonente yaag saaba ya la joor ak tubaab ba baba jaxuma kon du la a ba après ma jaaga jël dóor ba pare village bi faate nga nekk tukki rakkaar koor ak mbaar ak mbaar doon ak laab law beeg lébu mbër wala ku dër bu nee la ciix nga ni mbër mbër mi nag turam mawti la te mag ñi nee nañ janoog moom doy na muski la mawti du xiif du mar du mer du maar du juum du jaawale te lu waaye jël seen diggante mun na ko maasale bu la soxlaa ci suuf doo tale yéeg ci kaw bu la fekkee ngay dox doo jot a daw mawti du fiir du miir te yërëmul liir ci la benn voix neex bu màgg di dugg ban sponsor a koy bëgg ana ban tàmbar ma door a koy tëgg ma ne ko du yaa koy décidé jàppal ni rek bis dina ñëw nga décédé place bi nga seede keneen dugg ci kër gi dawal kaar bi nga dem ak sax bañ yóbbaale ngëm ak saar bi mu doon sa tool sukk sa bool maw tee ngi nii di la diir te du la mooy bu la taamoo sa gardé bi koy sa gardé bi bu la taamoo sa gardé bi ko xam oh, Sénégal man gam naa sama yoon fay fagar bàyyi naa la fi man man laay doog a gis man lu ma gën a yéem ci hip hop Galsen kaay Kota bàyyi naa la ak microphone bi parce que ma yéem leen bu ngeen ma gisatul rek bu ngeen ma gisatul rek maa ngi ci biir labelu Faye Kota bi nga xamante ni moom day wàcce te tuuti te kenn mën ko sële ko téye dem naa sama yenn Kota Kota Kota am nga sérieux problème Faye Kota yow Kota yow dama la ko man man Faye Kota laa lay baal Faye Kota bàyyi naa la ak microphone bi sama yenn di jaajëfal ñi nga xam ne ñu may seetaan ci mel ni ku ci mel ni ñoom Baara Ndiaye maa ngi koy béggee Baara Ndiaye aw ma fayam di béggee Mot Jonnu di béggee Mama Awa di béggee Anta Mbaye maa ngi béggee Marème Ndaw sama rakk ci Touba États-Unis maa ngi koy béggee bu baax a baax a baax dëgg ak aw fayam ndax li may def na ko ci man waaw tey fu ma egg fii tey jii mun naa ne moom la quoi di béggee sama yaay yi nga xam ne tey jii aw ma fayam lu ne def na ko ci man tamit di béggee sama soxna di béggee sama staff di béggee gaa yëpp di déggee groupe WhatsApp bu Fayda Rabbi maa ngi leen di dégg fan si kële bi di déggee Marème di déggee Jayna di déggee gaa yëpp ah pour rek bu yàggee dina jóg Vieux Diassi Khady Sarr Wan Lo di déggee gaa yëpp ah di respect jaajëf Yeumbeul for life di bëggee waa Sam nga xam ne ñoo def sama vidéo bi vidéo nga xam ne mi ngi wër àdduna chaque jour télé yi di ko teg ay quatre di bëggee laay bu kil la moom it daf may jàppale di bëggee Alassane Birane di bëggee Seydou di bëggee waa Allemagne ñëpp ah, di leen wax di get is dear yeah is cook Alex ok bye dear di bëggee gaa yëpp ah, jaajëf waay yëmbal wuyu wa Bienvenue sur Salam Vision.